yéenay baaxoo di suivre seen site bi di Firi ki nga xamante moom mooy monsieur Abdoulaye Seydi Sow mu nekk ministre bi nga xamante moom lañ dénk wàllu urbanisme amaloon na am ndaje jamono yee ci gannaaw fële ca diwaanu Ribo dem seet mooy candidat benn bokk yaakaar bi nga xam ne moom mooy Madiama Seck na ko waa Daaru Kunkung ambulance bi nga xamante na niki tey jox ko ki nga waaw Madiama mi nga xam ne moo nekk candidat benn moom mooy Abdoulaye Seydi Sow jox na ko li nga xam ne moom mooy ambulance bi nga xam moo ko waxoon ambulance bi nag ki nga xamante moom mooy Khadim Sarr Khadim Sarr mi nga xam ne moo nekk district bu santé fii ci diwaanu Koungheul jël na ambulance bi si mu jox ko ki nga xam ne mooy ICP bu ñu bu ñu tuddee Rama Kamara bi nga xam ne moo nekk foofu ci Daaru Kunkum mu nekk loo xam lu amati solo la ci diwaanu Daaru Kunkum toog nañ ay at di jooy ay ambulance yi li nga xam moom mooy ay déplacement ginnaaw boobu nag nga xam ne Abdoulaye Seydou Sow jox na leen li nga xam moom la leen duggoon ci jamono yi ñuy wax yéen fële ci diwaanu. Euh, ribo kon mu nekk loo xam ne waa population bi ñoom ñëpp kontaan neen ci ki nga xam ne li nga xamante xam ne di am am moom mooy kontaan na ci li nga xamante ni moom lañ ko jox surtout si jamono yi parce que jamono yooyu da am seen ambulance bi métti woon lool pour ñuy déplacer dañuy fal di jugee foofu te duñ am dara lu leen indi ba ñëw ba si ran ran bi ñu jël oto ñëw door a ku Koungheul mais loolu métti loolu kon mbokk yi mu ngi noonu jërë ngeen jëf